coowal suuf moo tàmbale am ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina ak fi ñuy wax Touba mosquée soriwul dara itam armeeli yi yile as diggante su ndaw am ñu ciy tudd ne jamono ji ñoo ko bëgg a sàkkal pexe loola tax na nag yenn ci kilifa yi nga xam ne rek ñoo dëkkee ci gox bi leen Serigne bu Bousso ñi mu àndal nii nag loolee duñu ko nangu. ku gis suñu diggante ak jumaa ji xam ne matul 100 mètres noonu it la demee ak armeel yu njëkk yi nga xam ne mooy ci jumaa ji. tey jii li xew mooy fii ñu taxaw nii nga xam ne voie publique la bokkul ci natt bi. la am ñu ñëw natt ko ne dañ koy jaay bari fan yii yëpp nag ñu ngi ko doon dégg yi waaye nag bala ñooy jug ndax ay kilifa bu ñu dee waxee dañuy wax ci ay preuve démb ci suba la ci géomètre bi ñëw natt ko ba marque ko gis ngeen yéen ñëpp gis ngeen marque yi ci machine ne dañ koy jaay biñ leen woowee nag am na ñuñ ci woo wax leen ko ñu ne yëguñ ko ñu wax ne ñoom ñoo ñoom ñoo ci nekk seen ginnaaw waaye loolu lépp amu solo li am solo mooy fii nii ñun ñëpp mànkoo nañ ne tant que ñi ngi dundu kenn du fi teg benn pied. bokk na ci sabab yi nag boobule bërëb nekk bërëb boo xam ne askan wi yëpp ñoo ko bokk bu ñu ko amalee am na ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne mën na koo andi rawatina lu jëm ci wàllu accident yeeg yu ni mel. fii réservé la boo xam ne nii buñ ko mun defar ndax sécurité la insécurité la indi ndax ku jugee ci armée yi war a jëm ci jumaa ji fii buñ ko tabaxee kuñ ko jaayee kenn mu ñëw def ko R plus 3 ku jugee ci jumaa ji war a ñëw intersection ñaata soog moo am boobaa ñun suñuy doom ak suñuy sët ak ñu ngi ci dansé ak ku mën a doon ak ku mën a nekk seen ginnaaw bay boo ñu dakkal ko ci xam ne lii du jàll. mairie bi jokkoo nañ ak ñoom nee nañ yëguñ ko waaye ñun daal duñ tudd tur am nañ informé wu nañ bu ndax ci dëkk bi lañ dëkk li fi xew ci kaw xam nañ ko li fi xew xam nañ ko nekk ci affaire bi di ci di ci minerve yëpp xam nañ leen waaye nag bu ñu arrêté wut danañ ñëpp kenn ko ñu tudd suuf am na ci ñoo xam ne jot nañ leen ñu daw responsabilité ne yëguñ ko yëgluwuñ ko waaye am nañ ay tur yoo xam ne xam nañ nga xam ñoom xam nañ bu set ñun ak ñoom ñoo bokk nekk ci dëkk bi gënuñ ñoo dëkk ci dëkk bi ëpp ñu sañ-sañ gënuñ ñëw bëgg dëkk bi ñun lu defar dëkk bi rek mooy ñor ñu bàyyi nag ñuy jël loo xam ne nii fii suñu insécurité lay doon ñu koy jël di ko jaay kenn du ci ab jàmm ci àll bi di ñëw di jaay loo xam ñun ñu fi dëkk ñoo bu doon jaay longu la kenn gënuñoo bëgg xaalis kenn gënuñu ko biitoo waaye fii du fu ñu jaay fu ñu jël la askan yëpp bokk di ko jariñoo waaye du lu ñu jaay ñu ne nag ci jamonoy Serigne Saliou jotoon nañu ko jéem sottiwul waaye bile yoon seen bakkan lañu ci gar jaay nañ ko jamonoy Serigne Saliou am na ko jaayoon ba encaissé woon xaalis ba bu ñu ko yëgalee suñu sal suñu sal defoon ko ay kit ngi suñu sal dafa ñëwoon na dañoo dem ba gis ne dafa sedd moo tax ñu ñëw ba koo jaayaat di ko nattaat di ko jaay waaye loolu du jàll ndax taxaw nañ fi taxawaay boo xam ne du jàll fii buñ ko mënee defar jardin wala defar ko pawe ko ñi di fi toog di féexlu ay oto di gaaw am nekk parking mu baax na buñ ko mun def nañ ko bàyyi ni mu nekk géomètre bi nag rawatina nag keneen ku ñëw képp nag ku ci dugal sa xaalis ne da nga koy jënd boo ci defee sa xaalis moom perte nga. ñoom ñi la dey dàqu ñu ba amal ab mémorandum ci suuf soosee nga xam ne bëgg nañu koo saax saaxee. danañ defar benn mémorandum boo xam ni waa koñ bi yëpp danañ ko signé tànn ki nga xam ne mooy def délégation ñu dem ci village ne kii mooy suñu délégué carte bu dee ne loo xam ñoo ko war a génne yóbbu ko ne suñu àq la a dellu si waat ñu dellu ko ci ñun loolu mooy ñaari ñaari yi nga xam ne dañ ko am la ci des nag li ci des mbirum sëñ bi la ñun nag ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ li fi xew ñuy ragal sëñ bi ne manifesté wuñ mars wuñ yàquñ ci janoo taskatu xibaar yi ñu doon amal rawatina nag seen délégué de quartier bi nga xam ne jàpp nañu ne amalu leen njëriñ mu nekk nag coowal suuf loo xam ne buñ ci waxul mbir yi mën naa ëppi loxo sëñ Muntaxa yi nga xam ne moo fi nekk sëñ Tuubaa xam nañ ne yëgu ko waaye nag ñi ngi ko koy yëgal bu baax a baax xam ne nag ñi ngi ñi ngi ñi ngi ngi am lu ñu ruumandaat fii loo xam ne nii bés bu jugee kaw